doon neewoon dañu bëgg a nekk candidat laajte askan wi seen baat euh, ànd ceek euh, mouvement la voix du peuple bi nga xam ne ñoo ñëw comme ni ma la waxee woon fekk ma sama kër ne yow la ñu tànn yow ñuy jiital MVP ñu am ci nag euh, kontante ak yaakaar ba pare nag candidature bi yëkkati espoir bu rëy a rëy ci senegal ak diaspora bi si ñu bëree baree bëri ndax dafa doon candidature boo xam ne dafa jaaxaloon nit ñi militaire boo xam ne retraité na ñëw ci langue bi ah jaaxaloon nañu bari bari. mais euh, comme ni ñu koy waxee rek yenn saa yi di nga dem nga ay genoux su boobaa da ngay sëpp say loxo jugaat ñaan yàlla mu jékkati la ci li nga jé li nga génn. Hmm. te mu defal li la gënal ëllëg. moo tax tey ma ñëw bëgg a waxtaan ak nag ñi nga xam ne amoon nañu yaakaar ci man. te seen yaakaar antuwul ma wax leen li ko sabab. lu ko sabab. diggante bi nga yëkkatee sa loxo ni bokk naa ba nga def sax sa déclaration de candidature loolu fii la ñu fekk ginnaaw gi nga commencé woon dérouler c'est vrai que ne am na benn moment boo xam ne woolu woon nañ la fi ca section de recherche am lu ñu naroon teg ci sa candidature jàpp ni teg si mayu la ko coow la bëri nga génn ne dinaa leeral samay avocat nañ ci liggéey ginnaaw gi euh, gisuñu. waaw mais euh, foofu daal lañ ca yemoon ci <laughs> ñi ko doon topp ci euh, scénario bi. man li ma gëm li ma gëmoon mooy sama candidature dara engagé wu ci affaire ay obligation de réserve fu ñu doon wax. donc terewul ma ko continuer comme li nga wax di dérouler dérouler ba ci biir hmm. euh, li may mën a wax mooy wor moo am. wor xam nga Sénégal yàgg naa la wax ne man man du ma politicien militaire la lépp lu may wax dama koy wax ngir dëgg. teg ko ci dëgg ndax ay nopp yu dégg nag dëgg moo gën a neex a dégg ka leneen kasafaan dama ànd ak si euh, coalition jiite coalition bi am ñoo xam ne ñi ngi doon jàpp ci coalition bi ñenn ñi nekk si ñoo xam ne ay pa ay personnes influentes au dernier moment hmm. ñu génn ak benn partout pàccu coalition bi dem yóbbaale parrainage yi ñu fi jotoon a am ay c'est du nekk ci loo xam ne diir bu gàtt boo xam ne presque Euh, ñu ngi woon ci veille dépôt des élect des des candidatures mu nekk loo xam ne euh, lu ma bett la mais euh, dañuy jàng waaw mais looloo am. nga dem ba ci pratiquement veille dépôt yi lañ dajale woon pour war ko pare ne kenn ci ñoom wala boog ñi gën a influente nga wax. lu wax pas ñi gën a influente mais kenn ci ñoom et il se reconnaîtra. nettu ngaañ parrainage parce que dafa dem yóbbaale pàccu nit ñi nekkoon si ñun suñu ay délégué ànd ak ñoom dem ci beneen coalition ñu tabb ko fa secrétaire national du parti. Uh-huh. waaw il se reconnaîtra du ma turu kenn mais moom il se reconnaîtra. identifié ngeen ko ba xam kana xam nañ ko bu baax. ngeen seetaan yéen. mais li am am na ba pare te yaakaar naa ne dem di nekkaat ci yuuxu si télé yi wax turam ak loolu amul njëriñ. oui mais ci ci wàllu yoon ndax mënu leen woon li ma li ngay wax nii daanaka abus de confiance la. waaw mais man loolu dama li yoo xam ne bu may jóg. Sénégal rek ma taxoon a jóg Sénégal rek ma ñor sa mbopp taxu ma woon a jóg. Hmm. loolu am na bi mu amee jéem nañu yeneen pexe sottiwul mais ñoo am ne loolu la yàlla dogal comme toujours man ni ma lay wax Pape Ousmane. Hmm. li yàlla dogal dañuy nangu ne looloo gën si ñun. mais yemul foofu sax nag am na keneen koo xam ne aussi euh, kàngam la woon si ñu doon jàppale moom tam dafa jékki-jékki dem ànd ak benn parti boo xam parti bu gën a mag ci Sénégal yaakaar naa benn bokk yaakaar dem àndali. Ah. jël mouvement am dem teg ko seen loxo ànd ak ñoom. waaw mais lu xew euh, yéen seen yaakaar naa ne coalition rassure ngeen wax. rassure ah, waaw ñun dañoo ñëw pour dalal xel ànd suqali suñu réew. waaye dafa dem ba ci biir yaakaar naa Sénégal ñoom weesowuñu politique boo xam ne politicien la ak weesooguñu politique wu naxante ci loolu lañ toll ñun nag soldat lañu comme du ma la ko waxee loo xam ne ko foo dundee 40 ans dara du la fa soppi. Hmm. ba pare sax du balaa ñuy nekk soldat dañu ñu ko yare woon suñu kàddu suñu ko joxee fenn dañ koy sàmm. moo tax ñu ñemaat ñëwaat toog parce que soldat. su demee mission ba ñëw day def retour d' exercice d' expérience. Hmm. rétex lañ koy wax ñun. retour d' expérience soo demee su baaxee da ngay ñëw wax li ci bon ak lu ci baax. Hmm. su boo li ci bon aussi danga koy ñëw wax ko nit ñi ne lii moo am moo tax lii am moo tax ma dellu si Sénégalais yi nga xam ne amoon nañ yaakaar ci sama candidature muy diaspora bi. fii. ma ciy seppi nag euh, ñett ñoo xam ne vraiment euh, jàpp nañ ci dox nañ ci wax nañ ci ak ñëpp muy euh, le colonel Tabaski Diouf ma koy remercier parce que ci wax na ci télé Walfadjri yi que le colonel Mbodj c'était une chance pour le Sénégal te du nekk nit koo xam ne du nekk kuy waxtu la may remercier également un grand ancien boo xam ne bu ma yëgee sama candidature daf ma woo wax ma rassuré ma jàppale ma ci xam-xam ak xalaatam muy le colonel Djibril Thiandoum qui est la retraite au niveau de la diaspora je sais que il se reconnaîtra il hmm. fait pour moi et il a tout tenté également ou dernier moment pour que ça passe. mais balaa maa tëj parenthèse boobu ci rassure euh, yaa ngi wax ni peut-être doo tudd tur man boo nee MVP ki ma xam njiit li Moussa Seck lay wuyoo di ancien légionnaire. di di nitu kàddu. Ah. ma biral la loolu. di da nga am déception ci li ñu. non Moussa Moussa ah. aw ma déception si moom. ah su war amee sax moom la ñu war waaye du man la ñu war réellement parce que moom yaakaaram Moussa du dem demul si élection pour perte ko loolu la Moussa gëm loolu la Moussa wax donc ce n'est pas au niveau de Moussa Seck. na ci te ah. tout de suite. ci lu tir Moussa Seck je le remercie d'avoir engagé la processus parce que moo ñëw sama kër ne yow la ñuy jiital. te ba tey dara jógul ci loolu mu waxoon. Mm-hmm. mais ñëw mu àndaloon am na ñoo xam ne ñoom moom la ñu war. waraale nag candidature bi yëpp looloo am. nga ni bi loolu amee yemoo ci am na yeneen pexe yu ngeen doon nas pexe yooyu jëmoon ci fan. amee ah, mais naturellement ñi nga xam ne ñoom laa gën a mënoon a jage. oui parce que ñu wax ni jage nga ku mel ni Ousmane Sonko amoon na ay waxtaan ay dugg génn. loolu ko xaw ma foo ko jëlee. mais am ah, xaw ma ah. foo ko jële mais am na. ah waaw am na parce que man euh, soo dégloo programme bu Pastef bu El Malick Ndiaye wax récemment El Malick mosuma ko gis man mosuma gis kenn ci waa Pastef pratiquement xaw ma leen. Hmm. mais soo gisee programme bi mu wax moo doon ñoom assise national la ñuy jël. waay réformer ko indi ci lu suñu amee lu bees lu ñu ci teg ñu teg ko ci. man loolu laa fi mu a wax mu us Ousmane. waay ak nag loo xam ne dama ko doon wax ne. mandat de transition wu cinq ans lay def. am na ñeneen ñu ñëw ne mandat de transition trois ans la ñuy def. peut être xëy na mooy expliquer lu tax. en tout cas xalaat ni choix baa ñoom kon loolu am na. sa digg ak Pastef demoon na ba waxtaan am pour xool alternative nuñ la parrainé. non alternative nuñ ma parrainé. comme li may wax man duma wax loo xam ne amul. am na ñu jege ñu nekk ci biir Pastef ñoo xam ne waxtaan na wax na ak ñoom effectivement pour que alternative mën a nekk. bi ma bi ma amee des euh, déception bi ma am. ci euh, ñenn ñi bàbbeekoo ak suñu parrainage. ñoom naturellement ñoom ñoo ma gënoon jege. te am na ñu ma ci jotoon a xam. Hmm. ma ci cité kenn koo xam ne suma rakk la suma xarit la sëriñ Cheikh Thioro Mbacke. ak Biram Diouf bi muy nekk son coordonnateur adjoint bi nekk Touba. ñooñu ñu ma jege la mais. Ah, bi ñu koy yëg c' était pratiquement à deux jours de dañ euh, ko yëg ñoom. mais avant ça j'avais de possibilité de discuter avec certains gens de Pastef ça c'est la réalité. dem nañ sax boo wax ma ni pare woon nga pour dajeeg même Ousmane Sonko dafa mel ni. non waaw fa mu euh, nekk xëy na moo. jafe pour nga jotee ca. demandé naa ñaari yoon permis pour ah. dem gis ko ñu bañal ñu gàntal ma ko. damay wax nag demande permis yooyu nag hmm. moom ci boppam sàkk woon na pour gis ma bëggoon na ma gis ci li ma jotaat liñ ma liñ ma yeggee. moo tax ma dem demander permis pour dem gisi ko. bu ma ko bëggee ñu demandé première période ñu refusé ma ko une deuxième fois ñu accordé ma ko le jour ma koy jël si ñu ne ma modèle bi changé na. modèle bi changé na modèle bi changé na. kon kenn mënu modèle permis bi changé na. changé jëm ci fan. changé na et que y' a que le doyen des juges maintenant mooy joxe modèle yu bees yi kon modèle bu ñu la bind bu ñu la bu ñu la bindaloon nga war a ko jël si tey boobu c'est caduc donc looloo moo teree ma gis ak moom may wax ne nag man du bokkuma Pastef mais Ousmane li ma la yàgg a wax. Hmm. Ousmane suma rakk la te jàpp naa ne suma rakk la. voilà oui loo bëgg a wax ni bi nga dajeek ay responsable Pastef ci wër alternative boobu ñoom ñi nga jot a waxtaanal mooy ni favorable woon nañu ci parrainer euh, ku mel ni yow sa candidature. non man dajewuma kenn ci Pastef. encore une fois am na ñoo xam ne wax nañ Cheikh Thioro oui oui ci ñi nga jot a moom lu ñu doon waxtaan bu ma koy bu affaire bi amee pare laa ko la ko yëg sax nag. ci mm. ne lii moo xew sama sama diggante ak ma àndaloon mais dafa am ñeneen ñoo xam ne dañoo gëm sama candidature te xaw ma leen. mooy wax ne euh, au niveau de la diaspora je vais le citer parce que nag koo xam ne ku xeex pour sama candidature la muy Fadel Dieng. bu One Million March. waay One Million Fadel mosuma ko gis xamuma ko loolu la yàlla def mais wax nañ au téléphone ba tey fu mu nekk nii mën naa considérer ne ku ko ku ma jage la te ku ko jage laa parce que nag Sénégal rek moo ko ñor te Sénégal la jiital. Fadel lu mu deful pour que sama candidature bi jàll def ko mënul. Hmm. jéem na lu nekk moom moo ci nekkoon sax sama diggante ak ñoom di ci wax. di ci wax mais man personnellement sorewuma ci woon. mais moom moo fan la mbiri bi ba xëy na ñoom xalaatuñu laa. non ah, loolu ñoom loolu moom mënuma ci wax parce que ñoom la seen décision la seen décision la seen ils sont libres de de choisir qui ils veulent. oui mais bi nga déggee Habib Habib si. xaw ma ko am na ñu ko parrainé. xaw ma ko mosuma ko gi mosuñu toog mosuñu wax. li ma xam daal ci moom mooy nekkoon directeur de cabinet président Macky euh, président de la République euh, Abdoulaye Wade c'est un politicien et euh, mënuma ko ci wax ci moom ci lenn lenn daal xam naa ko de loolu wax ni way mooy transition bi waay man man mandat de transition laa doon laajte un seul mandat de transition ñoom ñëw na ne mandat de transition trois ans ou deux ans la soxla pour rétablir les choses dem loolu laa xam ci moom mais leneen mënuma ko wax ci moom oui tey bu dee ni yaa ngi dégg ci information même bu fekkee du côté de Pastef nanguwuñ ko dëggal que ni am na ñenn ci ñen ñoon ñu ko parrainel xëy na yow ci logique bi nga nekkoon mooy ni su dee ni kóolute am na ci taxawaay que ñoom it ñu mun la parrainel comme ni ñu ko defee ak Habib lan nga jàpp ni sa différence ak Habib moo def choix bi. mais Habib la ñu gën a xam ka man. Habib mu ngi nekk ak ci yeewu askan wi. te maa ngi seetaan benn émission démb guddee na trop sax si yéen. avec euh, Cheikh Thioro Cheikh Thioro. parce que nag Cheikh Thioro ci li muy dugg dama koy jéem a xool seetaan ko parce que sama rakkal la comme je dis suma xarit la. mais euh, moom jéem na ci indi tontom man nag du ci tontu parce que bokkuma ci. bokkuma Pastef donc euh, du ma tontu ci lu tax ñu seen choix ñu porté ko ci Habib si kooku choix wu Pastef la. Hmm. voilà. choix wu Pastef la daje bi nga doon sàkk pour mu am sa digg ak Ousmane contexte bi la walla lan la lu tax nga jàpp ni. fi ci toll nii war ngaa gisee ak moom. non man yàgg naa wax ne Ousmane suma rakk la. waaye bi ma bi ma bëggee gisee moom moom tam bëggoon na gisee man. waay waaw ay wutal nañ ma sax permis ñu gàntal leen ko kon nga xam ne du man man maa jéem a wuti Ousmane pour lii wala pour lale. lan la lu su ma rakk la non. ma a gis ko dama ko bëggoon a gis ñu waxtaanee réew mi. waxtaanee xalaat ma weccante moom xalaat. wéccante moom xalaat. Hmm. lu ma ko mën a wax ci luy li euh, choix yu mel ni su fekkee ni ay choix yi yëpp mun nañ ci waxtaan su ma gisee woon ak moom xëy na dina gën a xam fan lay teg tànkam si yenn côté yi donte xam na ko am na ñu ko wër. di ko waxal moom doon def mu nekk mi ngi waxtaan ak ñi ñi ko wër comme ni ko sëriñ Cheikh Thioro Mbacké waxee. waay man suñu toogoon wax. on va échanger comme naturellement un frère des frères lu mu xalaat. moo wax sama xalaat am na yu am yooyu gis. bàyyee bàyyeekoo xëy na ci moom comme ni ñu koy waxee. man na bu waxtaan amoon dana ute gis nga man Pape Ousmane. Hmm. dama di sénégalais boo xam ne soldat laa te gëm naa yàlla kenn feesul sama bët ku ma mënti toogal dinaa la wax li ma xalaat duma la wax li la neex li ma xalaat la ak li gën ci réew mi te ma xalaat na mooy li gën ci réew mi dinaa la ko wax. Hmm. président de la république Macky bi ma toogee moom li ma xalaat ci réew mi dama ko ko wax donc man li ma gëm la. Mm. ne ko nag nit ñi par exemple wutaluñ bu ñu la wutal ay noon parce que yow li nga liggéey ci Sénégal am na loo fi liggéey am na tàggatémbe mais am na loo fi liggéey loo xam ne kenn mënu ko dindi. waay bu la kenn wutal noonu à l'époque on disait que moi j'étais un ñi la wër benn vision la ñuy dégg la vision de par la vision du président de la République d'accord c'est le, président de la République qui une vision mais ñi jëmal ñi jëmal vision boobu. mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci suuf war a jëmmal vision bi doxal ko te loolu laa ko waxoon. Hmm. su ma toogoon nag euh, Ousmane loolu la dama koy wax si li ma xalaat. mais xam nañ aussi simplement. xam nañ ni dooyam rek ci wax ci xalaat am na loo xëy na nisar yoo xam te ne xëy na doo ko wax fii loolu tamit mooy dëgg. waaw Ousmane amul lenn loo xam ne amul ah. lenn loo xam ne. mun naa ko nëbb fii. su ma demoon dama bëgg a wax ni yow bi ngay daje même Ousmane Sonko ci bi muy metti ca Ziguinchor. Ousmane tey su nekk communiqué nga ci mais waxoo lépp. non doo wax ak kilifa ba pare lépp loo wax ak moom nga ah, wax ko. Ah, foofu laay waxee. kilifa soo waxee ak moom ba pare am na loo xam ne da nga ko denc. Ah, mooy li normal. Hmm. li mën a tegu ci wax waxtaanu biti dafa am ak waxtaanu biir dafa am. Hmm. am na loo xam ne dinaa ko ko wax mais du ma ko génne su ma ko ko waxoon tamit du ma ko génne ci télévision. et de la même manière bi nga daje ak président Macky Sall tamit am na loo. xam lu bëri xam naa ko lu bëri du ma ko mus a wax ci àdduna. parce que président de la kon muy wax ni toog fii wax ni kilifa la sëñ la palisat président la am na lu bëree bëree bëree bëri loo xam ne wax nañ ko c'est comme dans une tombe pare naa ci suul naa ko du ma ci mës a wax mais je suis républicain pas Ousmane je ne vais pas dire que je suis un mais je républicain